Amadou Ba wana naa wa ay paar Anda Amadou Ba de jappale Amadou Ba am dafa ñaaw Amadou Ba bi aji jallu gaño ba legi mu ne mu ngi ñew fi di doga jalla ce lii c'est honte ñi ñew fi di rayante seen biir ay pa ay magi jëm anda Amadou Ba na dañuy te ay magi jëm di xagne seeni dom lu ñaaw mbokk yi déglu ak di tataane ci biir Lebu RMD dal leen ak jàmm ci ay xibaar ginnaaw yu ñeel ki nga xamante ni si moom moo di ministre Amadou Ba ci ginnaaw benn visite boo xam ne doon na ko amal fële ca Ngor ci deewuk Adja Diallo depuis 19 mars boobee ba léegi ci atum 2023 bi mu génnee àdduna ci waraloon ci ay manifestation la ñàkkoon li nga xam ni moom moo di bakkanam waaye mu mel nii ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba ba mu fa demee dafa yëngalaat askan woowu woowee ba tax na xeexoo ak xiiroo daal jur ci seen biir biir ñi nga xamante ni si ñoom ñooy famille victime ya nag seen xel daal di delluwaat ca koor boobee rayin bu ñaaw ba nga xamante ni rayoon nañ ko ko ñoom ñu yuuxaloo ko jooyaloo ci la amadou ba daal di dawee ak otoom cortège ba mu àndaloon ñoom ñëpp dañoo daal di mujj daal di jógee ca lieu boobu yëpp mu nekk loo xamante ni si metti na waa ngor ba léegi nii ñoom nag ñu ngi bëgg boobu ba léegi ay enquête ak kon rey seen doom joojee waaye ba léegi si ñuy waxe ak yéen enquête bu jibu ci benn yoon te xamaguñ lan moo moo rey li nga xam ni moom mooy seen doom joojee